أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suura al an'am ci kàttanu borom bi tey ñu ngi jël ñaari aaya aaya 143 ak 144 ñaari aaya yooyu sunu boroom subhanahu wa taala mi ngi ciy jàngal juróomi mbir bi ci njëkk mooy ibaahatu aklul bahimatul an'aami wa hiya samaniyatu azwaaj daanun wa maazun wa ibilun wa baqar wa kulluha dakarun aw unsa sunu borom subhanahu wa taala mu ngi nuy jàngal daganal gi mu daganal ci ñun ñu jëfandikoo ci lekk loolu ñu naan bahimatul an'am mooy bàyyima yi nga xam ne dañ leen di yar te diine daganal ñu lekk leen te ñu leen di yar ci sunu kër yi mu ne yooyu nag wa hiya samaniyatu azwaaj borom bi tabaraka wa taala daganal na ci yooyu juróom ñetti xeet loolu ñu naan nag ñaari loolu ñu naan xar ñaari loolu ñu naan béy ñaari loolu ñu naan gëléem ñaari loolu ñu naan nag ñaari soo ko boole deux plus deux plus deux plus deux mu nekk huit moo xam góor gi la moo xam ku jigéen kon loolu sunu borom subhanahu wa taala moo ko daganal ci ñun daganal ñu ci yooyu ñu naan bahimatul an'am te mooy jur yi ñuy yar te ñuy miinaate te ñu dagana lekk borom bi tabaraka wa taala tànn ci juróom ñetti xeet bu nekk góor baag bu jigéen ba daal di koy daganal ci ñun ci ñu mun koo jëfandikoo loolu tey danañ ko jàng ci sunu dars bi ci sunu aaya yi nekk sunu kanam loolu nag mbokk yi xéewal gu rëy rëy la mooy sunu borom subhanahu wa taala bind ñu bind yooyu ñun ñu nekk ay jaam yooyu nekk ay jaam sunu borom daganal ci ñun ñun ñuy jëfandikoo yooyu ci lépp nag ci bépp xeet te yooyu duñ ñu jëfandikoo tey yow boo amee doom mbaa nga am gan mbaa nga am céet mbaa nga am mbaa nga am da ngay dem jàpp ci yi sunu borom wax tëral ko jël paaka wala nga jël jaasi wala nga jël lu ñaw nga rendi ko te yooyu ñoom bu ñu amee xew yow duñ la rendi wala wala mos ngeen gis ñaari xar yi ngeen te ñu dem di rey nit mas ngeen gis ñaari nag yu ngeen di rey rey nit maanaam doomu aadama mooy jëfandikoo xar doomu aadama mooy jëfandikoo béy doomu aadama mooy jëfandikoo gëléem doomu aadama mooy jëfandikoo nag ci lépp nag di ko liggéeyloo di ko war di ko lekk bal sax di sol yaramam di jëfandikoo yaramam tey da ngay gis ay saak yoo xam ne lañ ko defaree der ay dàll yoo xam lan lañ ko defaree der ay ceinture yoo xam lan lañ ko defaree der ah ay ay ay kenn xamul tey li ñuy jëfandikoo ci deru rabu a jur àll yooyu kon yàlla tabaraka wa taala moo defal doomu aadama xéewal doomu aadama di jëfandikoo yooyu ci lépp ñaareel bi mooy borom bi tey ci aaya yi dinañ ci jàng ibtaalu tashri al jahiliya fi tahrim wa tahlil yàlla yàq gi mu yàq ak dindi gi mu dindi ceddo yi daganal gi ñuy daganal ak araamal gi ñuy araamal jékki-jékki rek daan ne dara dagan na jékki-jékki daan ne dara araam na ci lislaam kenn amul droit di daganal kenn amul droit di araamal kudul yàlla akub yonentam fal xalaalu ma ahallahu llah li dagan mooy li yàlla daganal wal xaraamu li araam ma xaramahu llahu wa rasul mooy li yàlla araamal akub yonentam ci sharia kenn amul droit jékki-jékki rek daal ne lii de dañ koo tere comme tey ni ko nit ñi di defee da nga gis tey ceddo yi ñu bëri boo nee ceddo dañ yaakaar ne démb arab yàlla woon rek jeex na waaye tey ji ba tey ceddo yaa ngi fi waaw kenn du lekk lii kenn du jaale ji guddi ah kenn du socc guddi kenn du jàng tabati ya daa guddi kenn du ah kenn du ah nelaw gi ginnaaw timis loolu moom diine ko tere xaru benn melo loolu kenn du ko lekk xaru sarax ay xaru seedo ah ay pitax kenn du ko yar ci kër ay naat kenn du ko yar ci kër rek kenn xamul loolu fu ñu ko jëlee da nga fekk yëfu ceddo la waaye du diine ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam yéen ñiy dund ci réew mi kenn du sang àllarbaak kenn xamul yooyu yëpp di nga fekk borom bi tabaraka wa taala di ko tere tey ci aaya yi ñuy jàng ci tahrim ak tahlil ci araamal ak daganal bu dee daganal kenn warul daganal ku dul yàlla ku dee araamal kenn warul araamal ku dul yàlla xoolal tey daganal niñ daganal rek góor takk lu ëpp ñeenti jabar tey da nga fekk tey ay kilifa diine di ko def takk lu ëpp ñeenti soxna di nga gis koo xam ne sax li mu takk xamu ko nga gis jigéen joo xam ne boo ko ne yow ban position nga ban position nga ci sa sëy xamu ko ne man xaw ma ñaata laa de wax dëgg yàlla xaw ma ko danañ ma jox ay rek waaye xaw ma ñaata laa xamul aawal la xamul ñaareel la xamul ñetteel la xamul ñeenteel la en tout cas daal am na jëkkër ah waa ji sax am nay doom waaye xamul doomam yi ñaata lañ ndax xamul jabar yi ñaata la yenn saa yi am ku ko romb rek mu ne kii moom rafet na dañu ne ko ci soxna yi la bokk de ci sa soxna yi ndax fàtte sax gu muy fàtte ndax bëril gum ko bëril loolu loolu du diine diine dafa am loo xam ne yàlla fi la la yemloo diine dafa am yàlla lu mu la waxloo am la lu mu la jëfloo am lu mu la lekkloo am lu mu la naanloo waaye am yu mu la tere waaye yow amoo droit di araamal wala ngay daganal loo xam ne yàlla tabaraka wa taala terewu la ko wala loo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf la ko tere kon ñaar yooyu nañ ci bàyyi xel at tahrim wa tahlil lillah ak yonentam daganal ak araamal yàllaa ko moom ak yonentam moo tax mu ne li daganal mooy li yàlla dagan li araam mooy li yàllaa ko yonent bi araamal lépp lu yonent bi araamal lu araam la lépp lu yàlla araamal lu araam la lu yonent bi daganal mooy li dagan li yàlla araamal mooy lu araam tey nag xam ngeen ne loolu moom daanaka li ci des lu tuuti la beneen bi ci tegu mooy jawaazul jidaal wal xujaj li ihqaaqil haq wa ibtaalil baatil dagan na ci diine daggasante wala werante ci diine lu tax nag ngay werante loolu tamit dafa war a leer waajaa ngi ni di werante wala waajaa ngi di daggasante wala waajaa ngi di xuloo ñu ne lu tax ñu ne moom day dafa fekk ay caaxaan bu ko fee dindi teg dëgg gaa yi di jàppanteeg moom loolu de dagan na waaye caaxaan yi ñu xewal léegi ci kii tamul benn njëriñ loolu moom nañu xam ne dafa daganut yooyu yonent bi dafa ne képp ku ko bàyyi sax man dinaa la maa la garantil néeg ci aljanna kon dagan na ah aljidaal wal xujaj mooy daggasante werante ah ak indi dëgg ay preuve pour lan pour dëgg leer li ihqaaqil xaq pour taxawal dëgg waaye wa ibtaalil baatil pour neenal caaxaan ndax ay léegi mu ngi ñëw suñu kanam dinañ gis yàlla ni mu ne yonente bi taxawal daggasante ak gaa yi lii ñuy araamal ak di ko daganal te yàlla waxagu ci nga indil ñoom nga indil nañ la indil ay preuve yuy wane ne nangam nangam poser leen ay question kon su fekkee ne werante wala dàggasante wala xulu am na fu mu araam ci diine fu ko diine tere waaye am na fu ko diine nangu saa yu ab julit fekkee ñu bëgg a jël caaxaan teg ko ci kaw dëgg wala ab julit fekkee ñu bëgg a réeral dëgg te mu am ci lu ko leer ne lii kat ay caaxaan la su boobaa na riposte na taxaw bu ci mënul dara mu daal di bàyyi beneen ba ca tegu mooy la azlam mimman yakzibu ala allahi taala kenn daq kenn dàquta tooñ kuy fenloo yàlla ku kenn dàq ko tooñ ku fekk yàlla wax ba pare yàlla indi dëggam nga taxaw pour dindi dëgg yàlla gi teg fa caaxaan wala nga taxaw pour dindi kàddu yàlla gi ak kooku mbokk yi kenn dàq koo tooñ yamoo ci fekk yàlla wax nga koy dindi waaye fa yushri li ibadihi ma lam yushri lahum nga dem sax di yoonalal nit ñi di leen degal ci diine loo xam ne yàlla tegu yàlla ne woor na nga ne bu kenn woor ah jarta woor de koor de jaru ko julli leen nga ne ah luñ koy doyee na xol bi rafet rek jarul julli na xol yi set rek ah loolu moom ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xam ngeen ko tey mu ngi ci sunu réew mi tey nga gis ay nit ñoo xam ne li yàlla wax bu yonente fee lañ koy teg waaw jigéen de lu mu def rek ba rafet dagan na loolu de lañ lay maye nangam araam na mees ñu ne la eh waaye saa waay bu ñu sonal jigéen nag na taaru rek nga gis nag bandi ya fa nekk ñëpp kontaan tàccu waaw di la jéem a naqaral te xam na ne loolu lépp daganut dafa araam. def bopp neen bii xew nii tey yokk ci sa kawar xolli sa yaram bi ah dóor say cheveux indien rosa sa kanam gi kenn xamul lu ñuy nuru ah tey soo nee loolu araam na nga gis kilifa diine gu taxaw fële di ko daganal loolu dara nekku ci ndax yàllaa gën a bëgg lu rafet kon nit ñi dañoo war rafet bàyyi leen nit ñi ñu rafet yooyu lañ lay may kon ay mbir la yoo xam ne tey moo ngi nii sunu kanam mu nekk juróomi mbir yoo xam ne tey ci sunu dars bi ñuy jàng sunu boroom subhanahu wa taala danañu ko jàngal kon lii mooy dars bi tey mbokk yi noo ngi ñaan yàlla mu dëgëral sunu kàddu ba duñu génn téeréem bi bismillahi arrahmani irrahim sunu boroom nee na thamaniyata azwaaj juróom ñetti xeet juróom ñetti façon ci ay jur yoo xam ne moom yàlla tabaraka wa taala moonu ko daganal nun nu war ko lekk nu war ko jëfandikoo mu ne mu ne samaniyata azwaaj juróom ñetti xeet asnaaf ah juróom ñetti peer bu góor ak bu jigéen mu ne mina daana snayni jur yi ñaar dagan na ci ban ak ban la xar ñaar yàlla ne dagal naa ko ci yéen ña- ban ak ban la ah ah ku góor ak bu jigéen bu góor bi ak bu jigéen bu góor bi nu mu tudd kuy bu jigéen bi ah xar bu jigéen wa min al maazi isnayni ca béy tamit ñaar daganal naa ko ban ak ban la bu góor ak bu jigéen bu góor ba nu mu tudd siket bu jigéen ba béy bu jigéen danaa leen jàpp de kon ñaar a ngi noonu ñeent a ngi noonu dagan na mooy lan xar bu góor ak bu jigéen dagan naa lekk béy bu góor ak bu jigéen dagan naa lekk soo demee ci xar mi bu góor baa nga tudd kuy soo demee ca béy yee bu jigéen bu góor baa nga tudd siket léegi nag borom bi ne laaj leen ñoom ñii qul waxal yow muhammad azakarayni harrama amil unsayayni laaj leen ndax yàlla tabaraka wa taala dafa araamal ñaari góor yi wala ñaari jigéen yi la araamal comme yéen da ngeen di araamal rek naan li araam na wala li dagan na lu leen neex ngeen daganal lu leen neex ngeen araamal ngeen dem sax ba naan lii la ya léegi nag lii ngeen ne yàlla da ka araamal muy xeet yi xar ñaari béy ñaari ban la ci yàlla araamal bu góor bi la leen tere wala bu jigéen bi la leen tere su dee bu góor bi la leen tere muy ñaari kuy yi muy kuy ma ak siket bi bu dee ñaari yu jigéen yi la leen tere muy xar bu jigéen bi ak léegi nag wax leen tontu leen nga li dàggasante la ay preuve la yàlla bëgg ñu indil yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax mu taxaw ne ko riposteel waxal ak gaa yi comme dañu ne lii moo dagan ci ñoom lii moo araamal lii moo araam te yàlla daganul yàlla waxu leen ci dara yàlla araamalu ko léegi laaj leen xul wax leen yow muhammad a zakarayni ndax ñaari yu góor yi xarama la yàlla araamal amil unsayayni wala ñaari jigéen yi wala su fekkee loolu amul amma stamalat loo xam ne daf ko ëmb alayhi ci moom arhamul unsayayni ruhumu jigéen ñi la ñu ëmb foofu su fekkee xar mi dafa ëmb wala béy bu jigéen ba dafa ëmb ñoom ñaar ñii ndax sax la ñu ëmb ci biir dafa araam wala dafa dagan laaj leen nañ la tontu boo leen laajee ñaari góor yi la yàlla araamal wala ñaari jigéen yi la yàlla araamal ñu ne patt amuñu ni ñu tontu laaj leen ndax xar bi la mu ëmb wala béy ba la mu ëmb moom tamit def cee bokk loolu da ko yàlla da ko araamal loolu dafa dagan da nga fekk ne kenn du la tontu ci ñaar ñeent yooyu yëpp ñett yooyu yëpp kenn du la tontu kon wax leen nabbi uuni xabaar leen ma xamal leen ma leeralal leen ma waaye bu ngeen di leeralal bu kenn leeral ci naan ñun kat dañoo fekk maam yi du ñu lekk lii ñun kat dañoo fekk sunuy papa ñun kat dañoo fekk sëriñ yi ñun kat dañoo fekk dëkk bi ñun kat dañoo fekk ñun kat dañoo fekk tey ji Sénégal ku fi tere dara rek lu mu lay wax ñun dañoo fekk ah yéen nag gis nga ñun lii fii lañ ko fekk wala yàlla lu bu muy wax ne yonent bi nañ la leeralal dafa ne nabbi'uuni luñ ju deg bi ilmin su ngeen di wax da ngeen di wax ci xam-xam waaye rek nii lañ fi fekk ah xoolal xoolal korite bi kori tabaski bi bii nii ndax xel nangu na woor arafat jeudi julli ji samedi jour bi ñu tëb ci diggante bi pourquoi ba waxee ñu ne la non julli ajuma baaxul ci nguur est ce xam ngeen ne loolu rek moo tax ñu bañ a julli ajuma xam ngeen loolu loolu kese la ceddo yi dañoo gëm ne nguur soo fi nekkee boo jullee nangami ajjuma rek da ngay daanu bu la fi korite fekkee nga julli fi nangami korite da ngay daanu waaw moo tax ñu koy tëb kenn du ko julli loolu fii lañ ko fekk ñun fii lañ fekk suñu papa yi di ko wax te dara amu ci bu doon loolu la kaaba gi dajjeeku fee mu nekk waaye li gën a bon ci àdduna mooy gëm xërëm te Sénégal gi li ci ëpp xërëm la ñuy jaamu jaamu yàlla xërëm kese la ñuy topp xërëm nabbi'uuni xamal leen ma bi ilmin ci xam-xam yàlla yemu ci de mu posé leen question ne leen in kuntum saadiqin bu fekkee wax ngeen dëgg li ngeen di wax dëgg la ne xar bu góor dafa araam wala xar bu jigéen wala béy bu góor wala béy bu jigéen wala la mu ëmb dafa araam wala ñaari jigéen yi ñoo araam wala ñaari góor yi ah indi leen preuve nabbi'uuni bi ilmin in kuntum saadiqin wax leen mu leer wax leen fan la ko yàlla wax fan la ko yonent bi wax indi leen seeni dalil qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqin ñaata yoon la ko alquran di wax borom xam-xam yi dañuy wax ne al isnaadu min ad-diin waaw soo waxee ba pare li nga wax nga indil ko cëslaay fi nga ko wéer nee na loolu ci diina la bokk su fekkee loolu amul ku ku la neex loo neex nga wax waaw su fekkee loolu amul moom ngay dégg fii tey ci kaset yi waaw diw ba mu nee tëll wala dégg wallaahi toog naa ci benn jotaay ma déglu benn rajo ñu teg benn band benn waaye mu ne euh, diw sëñ bi daf ko soxla woon toog gisu ko ñu toog ba caag rek mu ne tëll ñëw ak ñaqam sëñ bi ne ko foo nekkoon mu ne ñi dee ñi lañ doon transféré mu leen di récupéré di leen suul ci place sàngam ñi dee tey ci àddina bi yëpp bokk ci kër gi ñoom moom la demoon jëli di leen suul place sàngam ëllëg rek maanaam ñi dee ci bokk ci tarixa boobu ci àddina bi yëpp nga xam ne dañ leen suuloon feneen nee na moom moo demoon di leen sulli di leen indi di leen di di leen denc fi fi ñu wax nañ leen fa suul non te xam nga lu ci doy waar da ngay dégg waxu dof yu mel noonu ku naan est-ce que ay di ku ay ñëw di aalu Sénégal te loolu xam ngeen ne wax dëgg yàlla ku ñu suul fenn benn waaye dem di la jëli allahu akbar fu mu lay jëli fu mu lay jëli ah fu mu lay sullee bi mu lay jëli bi mu lay yenoo ku la gis xam nga wax neex na trop yow mën na trop ah waaw nee nañ kenn ki moom xaw ma lan la dafa siggi woon mu siggi rek mu ne nii ndox mi daal di daanu fële ñu ne ko lii lan la mu ne géej gi laa doon puus moo tax ma ñax ndox mi dal leen noonu gaa yi yuuxu loolu yomb na di bu dee diine nag boo waxee loolu bari dañ naan dalil indi dalil indi dalil yi wane da nga doon na da nga doon naan ndox mi wala da nga doon kii indi voilà waaye ndeysaan yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu ñu ñu ñu topp ko yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko li ëpp ci dëkk bi ci nit ñi dañ leen a nax li ëpp ci nit ñi laa wax ci ñuy dund diine dañ leen a nax lépp ci nit ñi kenn waxu leen yàlla kenn waxu leen yonent kenn waxu leen dëgg ay caaxaan lañ leen di won te loolu moo tax chaque jour alquran di wax ne nabbi'uuni bi ilmin in kuntum saadiqin wax leen ma xabaar leen ma ci xam-xam su fekkee ne yéen li ngeen di wax dëgg la kon kan war ngeen am cëslaay ci yàlla lu mu wax wala ngeen am cëslaay ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu mu wax waaw loolu mooy dëgg loolu nit ñi dañ ko war a xam waruñu bàyyi nit ñi rek ku xëy rek daan ne nangam bi rek nit ñi daan ne dëgg la te li ci doy waar mooy tey kooku di wax te du la indil benn dalil su nit taxawee di ko wet da ngay dégg ñu ne bàyyi leen dingat xanaa moo loolu mën na nekk mën na nekk mën na nekk de ndax yàlla moom lu ko neex def waaw ñëpp nit ñi yemuñ yooyu lañ lay may am na loo xam ne du nekk mukk ba yowmal qiyaamati du nekk surtout nag bu fekkee ci diine jii la lu tax mooy yonent bi yonent bi jàngale na ko ba pare kenn dootu ko changé maa yu baddalul qawlu la dayya yàlla nee na sama wax du changé ñun ñëpp xam nañ ne asamaan bi du taw or wala su benn waaye ñëwee ne la man damaa for si wa or nga ne ko bëgg a jël mu ne asamaan bi moo doon taw démb ci guddi ma daal di ma daal di koy def sama suuf ardoise mu wàcc ci ba fees kan ci ñun fii toog moo koy gëm ah damay laaj kan ci ñun fii moo koy gën yàlla mën na loolu wala mënu ko mën na ko wala mënu ko mën na ko mais du ko def parce que du du nekkul sunanullah nekkul lu war a am nga ji xaalis mu sax kenn ñoo rek ne la am naa toolu xaalis nga ne ana mu ne mu ngi place sàngam nañ dem da ngay dem wala doo dem kan ci ñun fii bu benn waaye ñoo ne ko ne woon ne la am naa toolu xaalis oto ngi nii duggal ñu dem kan ci ñun mooy dem da nga dem seeti ok soo demee ndax di nga gis toolu xaalis lu tax parce que xam nañ ne xaalis du sax ku bëgg xaalis da ngay liggéey ku ko wet dama nga wecceeku ay 100 francs nga saxal ko dama nga jël 10 000 nga dem nga ut tool nga saxal ko wala nga ut ay siwo nga saxal ko ci nga roose ko nga dem nga tëdd nelaw war na mën a sax de waaye boo yàggee ba yàgg ba yàgg ba yàgg soo ko sullee loo fay fekk day xomaat day yàqu day ñuul ko voilà parce que loolu nekkul loo xam ne soo waxee ñu ne la yàlla mën na ko am na loo xam ne yàlla du ko def nekkul lu yàlla di def yàlla li mu doon def ci diine ji def na ko ba pare yeneen luñ la indil te indiluñ la preuve ci xam-xam li yonent bi wax leen nii li yàlla wax leen mooy nabbi uuni bi elmin in kuntum saadiqin da nga xam ne dañ lay nax borom bi tabaraka wa taala mu ne wa minal iblis nayni boo demee ca gëléem ya ñaar lañ leen daganal ban ak ban la ah bu góor baa bu jigéen bu góor bi nu mu tudd ñaw waxoon naa leen dinaa leen jàpp waxoon naa leen di leen jàpp de kan moo xam gëléem bu góor nu mu tudd pourtant laaj naa ko ci nag laaj naa ko ci xar ngeen wax ci béy ngeen wax xar bu góor nu mu tudd kuy béy bu góor siket nag bu góor yëg ah gëlëm bu góor nag ah tukkal tukkal ngeen koy wax seen dëkk ah yéen yéen du ngeen koy wax seen dëkk yéen xamu leen ko yéen voilà kon suñu borom tabaraka wa taala ñaar yooyu bu nekk peer ba bu góor ak bu jigéen daganal na ko xeet wii gis nga borom mu ne wa bin- wa minal ibili isnayni wa minal baqari isnayni ci soo demee ci nag yi tamit ñaar bu góor ak bu jigéen léegi nag mu laajaat leen nu leen qul waxal yow muhammad azakarayni harrama amil unsayayni ñaar yu góor yi la yàlla araamal daganal ci yéen jigéen ñi wala ñaar yu jigéen yi la yàlla araamal daganal ci yéen yu góor yi acca wax leen comme da ngeen di daganal di araamal rek lu leen neex ngeen ne daganal lu leen naxari ngeen ne baaxul waaw da ngeen yor daal seeni seeni bànneexi bakkan seeni big ngeen yor di tracé lu seen bakkan taaral ngeen ne baax na lu seen bakkan neexul ngeen ne lii araam na acca léegi nag wax leen comme yéenay daganal di araamal tontu leen nañ la tontu laaj leen loolu wala bu fekkee ne du loolu amma stamalat alayhi arhamul unsayayni wala li nga xam ne ëmb na ko ñaar yu jigéen yi loolu moo araam wala loolu moo dagan lan ngeen ci war a lekk lan ngeen ci war a bàyyi wala sax yéen ñii am kuntum shuhada wala fekke ngeen aleykum salaam wala fekke ngeen keroog ba yàlla di daganal wala keroog bi yàlla di araamal fekke ngeen ko bi ngeen taxawee naan li dagan na li araam na ndax yéen fekke ngeen bi yàlla di ko daganal wala mu koy araamal ndax am ngeen ci ay seede aywa am kuntum shuhada ndax teewe woon ngeen is wassaakumullahu bi haza keroog ba yàlla di leen dénk loolu fekke woon ngeen ko te ñi naan kenn du jaale guddi keroog ba yonent bi naan kenn du jaale guddi wala yàlla naan duñ jaale guddi fekke woon ngeen ko ah ah mu ngoog kon diine nekku rek doomu aadama yi dañuy toog ba mu neex leen rek ku nekk naan lii dagan na lii araam na ñun suñu dëkk kenn du kii ñun suñu lii ñun suñuy maam déedéet diine amul suñuy maam diine bu ci suñuy maam desee rek araam na diine amul suñuy baay diine amul waa dëkk bi waaw de tey tey rek wala démb maa ngi dégg benn waay naan waaw xam nga am na aada yoo xam ne benn waay nee na booy jënd xaru tabaski nii ngay def nee na xar mi tëb nga xam ne baax na ma ne waaw mu ne wala nga ni ko nii nga xool ndax dina la gis wala du la gis mu ne xoola xoola kii ah non nee na da ngay da ngay def benn biir wi na xar mi mën a tëb loolu lan la ci loolu fan lañ ko bind te li garaaw Sénégal mooy gis nga événement yi bu ñu ko jibee loo daawul woon dégg di nga ko dégg loo daawul woon gis di nga ko gis ci ay boro nit ñoo xam ne lu nekk dañ koy wax waaw moo tax su fekkee nag yàlla dalaa nattu nga déglu ci ñoo xam ne sawaay ca ndànd fay-fay ga la ñu nekk yow keroog musiba da lay dal parce que da ngay dem di def loolu ñuy wax te bidaa ngay def ak bokkaale moo tax sunu borom subhanahu wa taala du deñ di joxoñ jaam yi pour seen diine ñu koy jëlee fu wér nit diineem daf koy jëlee fu wér saa yoo jëlee diine ku feebar sa diine day feebar ni ngeen di gisee nit ñi feebar noonu la amee diine bu feebar ku jël diine bu feebar nag la ngay def ci jaamu yàlla dara du ci wér ndax baaxul mu ngoog kon su fekkente ne yii yëpp amu leen kon seeni bànneexi bakkan ngeen topp amu leen dara lu leer kon yéenay sosal seeni bopp di waxal yàlla loo xam ne dara amu ci indi leen seede yi yàlla laaj na leen sànq ne leen nabbi uni bi ilmin in kuntum sadiqin fii mu ne leen am kuntum shuhada is wassaakumullahu bi hada ndax yéen yéen a seede woon yéen a fekke woon ngeen teew keroog ba yàlla di araamal nangam ak nangam ndax fekke woon ngeen ko acca bismillah indi leen témoins yi ndeysaan nit ñi danañ ne patt noppi ndax kenn amul loolu ndax ay caaxaan la ndax ay bànneexi bakkan la ndax dara du ci dëgg kon na ngeen yëg ne faman azlamu ana kan moo dàqatooñ tontu bi mooy kenn dàquta tooñ mim man ci waaje nga xam ne iftara ala allah dafay fenal yàlla dafay sosal yàlla kasiban ay fen naan yàlla wax te waxut yàlla daganal te daganut yàlla araamal te araamul kenn gën te dàqa tooñ kuy fenal yàlla yonent bi rek boo ko fenalee safara nga jëm man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaduhu minan naar kon ku fenal yàlla dem safara kon ku fenal ku fenal yonent bi dem safara kon ku fenal yàlla nag foo jëm ah kon nañ def attention ci léeg-léeg daganal gi ñuy daganal wala araamal gi ñuy araamal wala dàq gi ñuy dàq te loo xam ne ci diina la bokk tey loolu daa bëri nit ñi seeni bànneexi bakkan rek jaral na leen rek ñu ne ah lii da baaxut lii de kenn du ko def ay yéen da ngeen di def lii ay yéen sax de fàtte na ay baadu ngeen yéen moom yooyu lañ lay may ah waaw baat boobu ñu jël féetal la waaw waaw loolu la xam nga nit ñi bu ñu bëggee fo nit ñi bu ñu bëggee fo dañuy ñëw ne la yow sax da yow sax ibaadu nga yow yow sax xam nañ ne yow moom doo ko def waaye nu ñu nag nag ñu bàyyi nag tranquillement ndax ñun ak yow duñu benn ndax yow ibaadu nga ñun duñu ibaadu gis nga mooy ku bëgg a fo moo lay wax loolu ku bëgg a fo fooy diine yàlla bi rek day indi ay xàjjatle pour yow léegi dootoo ko mën a wax dara mu indi barrière boobu dóor sa kanam moo tax yow yaa ko dul nangu na nga ko xamal ne lii du mbirum ibaadu mbirum diine yàlla la lii la yàlla wax lii la yonent bi wax du mbirum ibaadu du mbirum sàmba du mbirum demba bu kenn nangu ñu jël baat boobu di la ko adressé nga dëkkoo ko nangu ku la ko indil dàq ko xamal ko lii mbirum yàlla la ak mbirum yonent waaw waaye du mbirum nangam du mbirum lii déedéet waaw tey gis xale bu jigéen boo xam ne dafay muuru dangal soo ko nee mu ne la déedéet man du may baaru damay sellal kese yoo koy sellaloo muy sell kay du dang wala mu ne la déedéet man du may baaru de pour léegi dootoo mën a wax ah ah déedéet na nga ko xamal nag lii dafa araam dafa goo dara waaw ñu bëri dañuy def loolu suñu bëggee fo yi dañuy dangal ba pare muuru nag génn su ko defee nit ñi ne kii de xam nga yéen léegi bu ngeen gisatee ku dangal dootu leen ko daaw ndax dafa dangal muuru ndax defe naa ne kii de muuru na dangal bi daaram ba pare te muuraay yi léegi dara baaxu ci dara baaxu ci lépp a yàqu lépp lañ yàq boo waxee ñu ne la man du may baax damay sellal kuy sellal dina paccal da ngay gis ku sol zipp muuru yaram bi nekk ci biti wala ween yi nekk ci biti mu mu teg kol mus naa ne benn xale bu jigéen bala ngay muur bopp kay muurtaat ñi ma àndaloon diree ma ne baal leen ma ci kàddu gi waaye dëgg laa ko wax bala ngay muur bopp bi nga muur saawara bi ah wala dëgg kon tey ay mbir la yoo xam ne euh, nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax xam ne tey dëkk bi fi nit ñi toll mooy alxuraan lii muy wax lii la gaa yi meloon démb alxuraan di leen ko dajj tey jii moom moo nekk sunu borom subhanahu wa taala mu ne faman azlamu kenn dàquta tooñ mimman ci waaja nga xam ne iftara dafa sos ah dafa fenal kan alallahi ci yàlla kasiban ay fen dafa duural yàlla ne yàlla moo tere te yàlla terewul wala yàlla moo daganal te yàlla daganul la moo tax waa ji def loolu indi na preuve bi mu ne li yu dilla naasa ngir mu réeral nit ñi bi gayri ilmin lu àndul ak xam-xam gis nga lii mooy teg sans commentaire tey jii loolu moo am ci dëkk bi ñi lay tere yëpp naan la nangam ak nangam ak kenn du génn gi ak kenn du def nii ak kenn du wax lii ak ñëpp lan la li yu dilla naas ngir réeral nit ñi waaye ndax réeral nit ñi kese la kooku di réeralaate ak ki ñuy réeral yépp bi gayri ilmin amuñu xam-xam lan la ñuy wax ñun sunu maam ñun sunuy baay ñun sunu famille ñun sunu xeet su fi liir juddoo balaa ñu koy wat mu ne bàyyi wat ma ñu doog ko wat wala ñetti jubbu lañ koy def ah wala wala wala yéen ñëpp xam ngeen tey xam ngeen mbir yi ku nekk xam nga ko loolu ban diine la waaw fekkee naa benn tudd paa bi mu ne ay bu ngeen reppee ba cë ci ba picc këf kawaru liir bi ay kawaru liir fu ko picc di këf xanaa dañ koy jël ba pare weer ko ci kaw ardoise ah non vraiment ay bidaa yoo xam ne ma anzalallahu biha min sultaan yal na nu yàlla taxaw ñii def loolu yëpp lu tax ñu koy def li yu dilla naas ngir ñu sànq nit ñi réeral leen bi xayri ilmin lu àndul ak xam-xam na ngeen yëg ne inna allaha naka buur bu tudd yàlla allahu subhanahu wa taala laa yahdi du jubal alqawma ay nit azzalimina tooñkat war nañ taxaw ñun ñëpp ci aaya bi sayid xawaa rahimahullah day wax bu ngeen jàngee alquran ba aaya yi jeex na ngeen taxaw yàlla nee na tooñkat duma ko jubal loo ciy dégg moom tooñ baaxul kon képp kuy tooñ booy ba nga taxaw ak koo mën a nekk nag ak koo mën a nekk ak doole boo mën a am bu yeboo sax nga mën a taxañ asamaan bu yeboo nga mën a naan géej bul tooñ tooñ résultat bi rek mooy da ngay réccu ak noo mën a toll te koo tooñ fii boo ko ëppee doole fii tooñ ko yomal xiyaam yàlla dina ko faylu waaw ak ku mu mën a doon tooñ baaxul mbokk yi kenn ci ñun bu mu ëpp doole nit di ko noggatu bu mu ëpp doole di ko ko won bu mu ëpp nit dajara daraja di ko ko won tooñ dañ ko tere inna allaha laa yahdi l qawma alzalimin yàlla nee na tooñkat yi du ma leen jubal mukk mukk mukk du ma leen baaxal mukk lii alxuraan la lii aaya la yoo xam ne jarul sax ngay firi firi bu yàgg ndax leer na képp ku mu doon ci ñun nag ah moo xam kilifa nga moo xam da ngaa jiite moo xam moo xam moo xam même bu dee sa kër même bu dee say doom même bu dee say dëkkandoo ku mu mën a doon ci ñun da nga yëg ne tooñ yàlla da ka aramal la tazlimanna iza ma kunta muqtadiran fa zulmu taatika uqbaahu binnadami tanaamu aynaama walmaslumi muntabihun yaddu alayka wa aynullahi lam tanami bul tooñ de loo am doole am doole bul tooñ ndax tooñ résultat bi du baax da ngay tooñ dem tëdd di nelaw ki nga tooñ lal si yaadaam jàkkaarloog yàlla di sujjóot naan yàlla yàlla nag ma àtte diw Sénégal nga wax nit bàyyi naa la ak yàlla mu naa la bàyyi nga ma ak sama xarit ana xama kooku sama maam la wala yàlla bokk ak sa papa wala sa yaay ba nekk sa maam loolu waxu yéeféer la kenn du wax maam yàlla baat boobu baatu kéeféer la ndax yàlla jurul sa baay jurul sa maam juru sa pap juru sa yaay waaw yàlla amul doom kon naka la nekkee sama am nga wax nit bàyyi naa la ak yàlla wala mu ne la déet déet déet déet maa ngi jéggalu baal ma rek waaw baal ma rek baal ma de waaye déedéet dinaa la bàyyi nga ma ak sama xarit bon loolu rek bàyyi nga ma ak yàlla fekk bàyyi naa la ak yàlla du waaw amoon na benn waay xissa baa ngi ci minhaajul muslim te daan wër mbeddi naan yaa man taraani la tasliman na ahada e yow mi may gis bul tooñ kenn de yaa man yaraani e yow mi jàkkaarloog man di ma xool góorgóorul bul tooñ kenn kooku ku dem xissa ba di nga xam lu mu defoon bay wër naan bu ma kenn tooñ bul tooñ kenn yow mi may gis bul tooñeeti parce que moom daa tooñoon ba musiba këpp ci kawam kon mbokk julli di loolu mooy dars tey noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu jéggal ñu njuumte yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu